Kouthia wax na ko Birane Birane wax na ko Youssou Youssou ne ko Kouthia comédien la rek ah loolu mënul nekk Youssou mënul woon xalaat loolu mais Youssou dégg na ko parce que wax naa ko Kouthia Kouthia wax ko Birane Birane wax ko papaam Youssou dégg na ni rajo am na mais bi mu ko déggee dafa am njort gu rafet moo tax bu ñu tagee un mois deux mois dafa jël DJ Boubou def ko directeur King King FM moo tax ma ne la Youssou dimension exceptionnelle yàlla dogal lañ ca naroon yëpp ñu def ko médium mooy def loolu médium nag euh, du du ay petaaw du ay kii ay énergie la yàlla moo la koy baaxee say mbokk nangul la ko nit ñi nangul la ko et puis du du lu ñuy utiliser da ngay tëdd guddi rek yàlla xiir la ci naan donc moo ma waral kii donc moo tax chaque jour ma ne Kouthia bu dul woon yow Bercy du am bii passé parce que Youssou sa doom bu ñu daggee tànkam buñ ko bàyyee woon sàggan mu dem tugal di def ko ci kees Bercy du ko am ma ne ko Bercy ngi am waaye ñoo ngi dem dina am mu jëm nee na dina am ku manqué Bercy bii passé ku caag moom may seetaan méjom ma ne ko méjom nee na Bercy dina am waaye bu ñu ñëwee ci ñoom dina am ku manqué man ne ko li nga leen defal yëpp bul dem Bercy yow doo dem waaye na nga jël trois cent treize mille jël mag jox ko ñoo ngay dem bu ñu ñëw dina am ku manqué donc lu méjom mooy def loolu. du affaire kurus du affaire lenn ay don la yàlla moo koy jagle li tax mu jox la ko xamuñu ko te ma jëm bu la wanee chaque jour da ngay lii def nañ ko TFM kon man ñàkk moom TFM wóorul. actuellement noo gisee abonné yu TFM. waa TFM euh, idéologie Youssou Ndour gars jànguñu ko Youssou li muy jàngale TFM emploi yi jànguñu ko. gis nga lii danger si société mooy ñaar mooy am ci TFM TFM da nga cay bokk wala nga nekk ci nit mën ngaa nekk ci bërëb la la ci intéressé mooy lañ lay fay ngay dugal sa weer nit da ngay bokk ci bërëb taq ja mooy Kouthia Kouthia daf caa bokk gis nga après Youssou bi yëf yi amee gis ngeen Kouthia fu ñuy dem dañ koy yóbbaale du hasard médium du fen médium day indi ay preuve teg avenir u nag mooy nee naa euh, Kouthia suma xarit moo tax chaque samedi gis nga mu tudd sama tur ci rajo bi ne maa ngi nuyu suma xarit Ablaye Ndiaye borom firi gént mënoon na ko fi bañ a fekk nit ko sincère bi mu jógee bi affaire yi amee ba muy dellu si waat man la njëkk tudd ne maa ngi nuyu suma xarit vidéo yaa ngi ci internet ba muy dellu si waat donc nit ku ñàkk ñan la te teewul naa leen diyal benn affaire TFM man euh, bokkuma ca. maanaam foo nekkee ci bërëb mooy dañ lay fay man fayuñu ma TFM ñeenti at yi doxuñu ma dërëm mais dama caa bokk yàllaa ma ca boole mais chaque jour maa ngi ñëw yàlla suturaal na ma sama xam-xam laa yor du ci dund man ku ma xam boole ma ak say mbokk parce que dama am damay jariñ askan te su ma neexoon li ma defoon ci jamono yooyu ma dem wax ko ne Youssou jox leen ma parce que Youssou xam na yëf yi nu mu demee jamono yooyu su ma bàyyi woon Birane dootul am barki Serigne Saliou moo tax Kouthia chaque jour dama naan ko Bercy bi am pourtant Bercy nañu yóbbuwuñu la pourtant yaa tax Bercy am bul mer mu meroon man ko bul cent jëlal 313000 nga saraxe ko ñoo ngay dem bu ñuy ñëw dina am kenn ku manqué ku manqué ci orchestre bi ñu ñëwee Habib médium mooy wane loolu am na yu bëri yoo xam ni Cheikh Ama doomam wan nañ ma ko bu yàgg maam ku ma wan ku ma woo ku ko ku ne xam na ko man ba xam nga boo nekkee télé ñëpp ngay xam ma na ko ah su ma sañoon nga wax diw ak ah, mu def sarax sànga kooku lu ma wax ma ne ko ah, su ma ko waxee du ma gëm ko moo tax bi yëf yi amee mu woo ma ma ne ko bul ma ma ne ko man mënuma comprendre ngeen di nit di dund ci moom ngeen ñu wax leen lenn même bu dee ay naxale sax wax leen ko ko gis nga réew mi ñu nekk réew moo la xam ne saay boo xëyee suba rek yàlla na la yàlla may li nga gëm nga téye ko waaw moom lay wax jeunes yi quoi gis nga kii jaay caaf li nga gëm téye ko leneen lu ñëw fekk si la garaaw mais lépp loo bàyyil ngir leneen sa ngëm-ngëm dina tas moo tax jeunes yi dama leen di encouragé di wax ne affaire yi ñàngul li am solo ci nit mooy ngëm-ngëm su soo amee ngëm-ngëm di nga jomb def wala di nga jomb wax ci yenn yi loolu la ñuy dund waa te TFM gis nga firi gént maa ko bind huit ans ngi nii ñoo ngi fay ko droit d'auteur yi moo tax chaque jour damay profité occasion di interpeller Youssou na ko neexul nga toog sa kër te gis émission firi muy daw une minute bu ne deux cent francs ci serveur te joxuñu ma li ma moom lu bon bon man defal naa leen dara te retour nañ ma delloo man li ma moom liggéey naa moom ñeente at mosuñu ma jox dërëm oustaz du ma jox dërëm teewul yàlla moom mooy suturaal am naa suma xam-xam maa ngi ci dund waaye dafa am loo xam ni baaxul ci télévision moo tax TFM li koy yàqal mooy diggante yi gars yi duñ ko sàmm tu vois oustaz man ak moom mënoon na rafet gis nga Njaay ak Kouthia doyen ak Père Boukhar ak yeneen ak yeneen yooyu baaxul si bërëb Youssou melul noonu moo tax Youssou Ndour daf leen di war a jël ñoom ñëpp yóbbu leen sali jàngal leen idéologie Youssou Ndour esprit d'ouverture ak esprit positif mooy li Mbaye Gueye Faye di wax ci Youssou Youssou dimension bu pata yuusu Youssou yéenam mooy Ivoirien bi dafa def Gambien bi dafa def mooy TFM mais ña fa nekk xamuñu esprit boobu li ñu xam mooy ñu si ëpp mooy bii quoi yaakaar nañ ne bii mooy dund bi quoi yaakaar nañ ne bii la non du bii gis nga bii ku koy incarné ci télévision luy yàq télé foofu lay jaar ba day xam ne bii ngeen bëgg mu sotti fay affaire problème mystique yi ñuy dese de yëpp prédit woon naa ko waaw c'est ça c'est la TFM télé bu mag la ay nit ñu baax a fa nekk Bouba Ndour nit ku baax la Ndiaga Ndour nit ku baax la ndax mënoon leen leen ko wax ñu bañ Ndiaga dañ ko expliquer Ndiaga ne naa dellu bi ma ñëwee buuba dafa yaatal yëf ñooñu esprit bi Youssou Ndour am bu ñu sañoon kenn du mer employé yi fa nekk nag ñoo war a xam ne yëf yi yaatu yëf yi war na yaatu ko waaye xam ne Youssou mi ñun ñoo ko moom Youssou àdduna la du Sénégal moo tax gis nga fii nataal bi photo bi ah. waaw man ku ma gis TFM bettu la man Youssou fi fa nekk waaw waaw moo tax lañ koy defal yëpp du tey yàgg na def Bercy Oustaz Abdou Karim lu ma doon wax bu gisee Youssou rek danaa ma sa waa ji waaw saa yi ñëpp xam nañu loolu quoi donc mënuñu am xam-xam te duñ ko protéger su ma noppi woon tey ginnaaw yàlla kon Birane dootul am barke Serigne Saliou. ñu lay bàyyi nga wax wala li ñuy baaxee euh, euh, Sénégal mooy euh, am na ay xeetu feebar yoo xam dañ fi bari lu ma ni hépatite B hépatite dafa bari ci réew mi moo tax dama ne nit ku nekk saay boo xëyee suba soo ci bëggee mucc boo xëyee suba le matin jëlal ndox. nga tàngal ndox mi ba mu tàng nga def ci citron nga daal ko naan su yàlla dogee nga amee hépatite del utiliser doomu papaya nga jël ko di ko yëy ndox moo mu nekk ci biir soo noppee nga jël pamplemousse pressé ko naan ko soo ko defee yàlla mën na laa dimbali gis nga feebar yëpp ay chiffres la rek chiffres yi soo ko régulariser mu wàcc ba yemal la fa kon ñu amee jabet suñ lañu wut plante bi nga xam ne mooy xasum darkase xasum darkase bi un diabétique produit bu mu ko baxal diabétique produit am ñi lay def day jël ndox rek ndox simple jël une cuillère bàyyi ko mooy macération soo paree yëngal filtre ko di ko naan un diabétique warul naan garab bu ñu tàngal garab bu ñu baaxal parce que diabète suukar la te suukar buggul lu tàng soo naanee day transformer fatt say say say organe loolu leen leen baaxe donc di nuyu ñëpp quoi parce que lii maa ngi koy soog a def lii. man liggéey na actuellement maa ngi Africa 7 actuellement maa ngi liggéey Africa sama barji moo ngi nële maa ngi Africa set di nuyu Aliou suma xarit la diaspora 24 la nekkoon bi mu ñëwee woo ma ne ma Ablaye kaay jàpp ci jël lépp luy jëm ci wàllu bio na ma defal nu la ko sentiré ma ne ko leneen loo xam ni amoon naa yéene def ko teefe mooy mane mag ñi mooy Youssou dafa ne nañu wane valeur yi ma ne ko nag jukki boobu muy puiser en français moom laay def fële ci Africa 7 kon donc ñun ci lu baax lañuy dox te 221 bi am nañ ci njot lumière la waaw am nañ ci njot gu yaatu gu gu yaatu man maa leen woo waaw parce que la tax ma woo leen du hasard kon donc yàlla na leen yàlla yéen tamit jàppale ba lépp loo leen fi wane mu doon njariñ ci mbokk yi ànd ak ñun di ñu seetaan ak suñu mbokk yi yëngu ni ku ci nekk ci la ngay yëngu yàlla na la ci yàlla may ndam képp ku am yaakaar ñëw ci yow man nag damay def ay livraison à domicile képp kuy ñëw sama kër ku nee nag man danga may woo téléphone waaw man noonu laay liggéeyee daal képp kuy ñëw sama kër danga may woo téléphone soo bëggee produit dañuy def ay livraison à domicile su dee Kaolack ci région yëpp am nañu ay fu waaye mën a nekk ci àdduna bi mën nga am suñu produit. waaw numéro bi mooy 77 244 98 05 donc suñu chaîne YouTube mooy Biorahma. Biorahma ma pense que inter gars yëpp xamee nañ ko quoi donc téléphone mooy 77 244 98 05 mooy numéro téléphone bi. docteur Abdoulaye Ndiaye non du ma du ma du ma du ma docteur nag. Hmm, waaw waaw man ab taalibe laa xam nga docteur. <laughs> docteur docteur mooy ki jàng. docteur du kenn du ko fooyee du lu ñuy foyee waaw moo tax ñemewu ma ko sax docteur soo ko waxee dem tugal dañ lay dax waaw man man donc ndongo laa goo xam ni li ma nekk dama ko gëm yàlla moo ma ko moo ma gëmloo ma gëm ne dëgg la mënoon naa dem tugal waaye dama gëm ne li ma nekk dëgg la ngëm-ngëm googu nag peut-être moo sax ba yàlla di dimbali ñu ci am luñ ci xam teg ko ci dëgg nag waaw parce que man ku ma xam ku ne dañ koy teg ci yoon daal mënoon nañu profité ci média yi ndax ku def TFM ñeenti at nekk Africa 7 donc mënoon nañu profité li di ko wane foofu mais dañu gis ne donc la daal waaw di rafetlu yëf yi di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla taxawu ñëpp yal na yàlla jàppale ñëpp yal na yàlla yiir ñëpp ku ci nekk ca la nga nekk yal na si yàlla nga am ngëm-ngëm pas-pas dëggu maanu yërmande ak njub